ci miroir régional topp miroir euh, régional nag euh, tey daf ñu yóbbu ci diwaanu Tambacounda ñu ne nag benn ay bés la ñu toogoon boo xam ne euh, lu jëm ci oxygène daal dafa xawoon a tumuranke foofu ci bu Tambacounda léegi nag jox nañ leen ñaare ñaareelu lal boo xam ne lu jëm ci réanimation moom moo ko tax loolu nag sax dina indi lenn ci saafara waaye tamit faju tawat ji ndax tawat ji itam bu nu waxee lu mel ni hôpital régional bu Tambacounda ñu ne dañoo am jafe-jafe ci wàllum oxygène ba ñuy toog benn ay bës amuñu ko askan wi ne ah jaaru na nag euh, ñu indi ci ay saafara duñ ci sori dañuy dem ca Sénégal oriental ki ñu fa toogal Moussa Omar lay buyo bul dara ñu ngi wax ay jafe-jafe yu jëm ci wàllu manqué oxygène ci hôpital régional bu Tambacounda ba taxoon directrice bi di Thérèse Aïda Ndiaye xam le ni am nañu centrale buy defar lépp lu jëm ci wàllu oxygène xanaa kay léeg-léeg dafay am ay jafe-jafe ci wàllum technique li am ba des nag mooy hôpital régional bu Tambacounda saa su ne dañuy dégg am na ay gàllankoor ci wàllum plateau technique bi mu jot nag ñu gën leen a fàttaliku ndaxte dafa nekk benn hôpital boo xam ne dafa nekk ci dëkku sele ba yoon. ñu ngi toppatoo maladie ñu ngi leen di defal ñu ngi leen di dimbale mais yàlla moom même boo joxee nit ki wàlluwaayam moom defe naa dara du doy de ñu ñuy gën a yokk souvent day gën a attiré parce que hôpital day fees 24 heures si 24 heures. ñoom ñëpp baax na. dafa am yurmeen dafa toppatoo malaat bu baax. ci réew yi nu wër muy ci Mali ci Guinée wala ci bi am na ñuy rawale di indi fii ci hôpital régional bu Tambacounda ci jamono jooju nag ñi nga xam ni ñoom ñooy waa. ONG PAF daal di leen indil benn lit de réanimation muy lit chaud boo xam ne mën nañ ko jëfandikoo ci xeex mbas mi waaye ëllëg si biir bu mbas mi weesoo laal boobu mën nañ ko jëfandikoo ci wàllum réanimation. waaw muy benn investissement boo xam ne moom la ñuy wax pérenne parce que day day day des fii lu nga xam ne dinañ ko utiliser tey ak ëllëg donc euh, muy liggéey bu nga xam ne amoon na solo ñun ñu def ko fondation Bayer ànd seeg ñun euh, parce que xam nañ ne suñu hôpitaux yi soxla nañu lu bëri. comme ñu koy waxee état bi mënul def lépp ku nekk bu ci dugalee sa loxo yaakaar nañu ne dinañ améliorer plateau technique yi ñuy wax pour que bépp doomu Sénégal fu mu mënti nekk mu mën a am sañ-sañ ne man sama sama sama wérgu yaram euh, yittewoo nañ ko. hôpital régional bu Tambacounda nekk de benn béréb boo xam ne tey jii am na lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari lal yoo xam ni mën nañ fa dalal ay patient muy ñoo xam ni seen wérgu yaram dafa sutante. autorité locales yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir ñi nga xam ne ñoom ñoo yor conseil départemental ñi nga xam ne ñoom ñoo yor conseil municipal autorités yi nga xam ne waa Tambacounda la wala sax autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk hôpital hôpital hôpital yi au niveau du ministère de la santé ñu dugal seen loxo bu baax a baax a baax ci fonctionnement hôpital régional Tamba parce que hôpital régional Tamba hôpital sous régional la dëkk yépp ñoom ñoo fi ñëw te côté yi dafa bëri ay accident bu dee nag bëgg nañu. évacuation yi ñu wàññi leen bu baax a baax a baax il faut que yenn spécialistes yi ñu nangu ñëw Tambacounda te bu ñu ñëwee Tambacounda les collectivité locales dugal ci seen loxo pour ñu mën a nangu toog Tambacounda parce que c'est extrêmement important. xam ni ñoom ñooy patients yi fay ñëw ñu gën a xam ni hôpital bi ñëpp ak bokk ku ci ne di fexe di defar mu gën a baaxee waaye itam ba tey ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk collectivités territoriales yi ak nguur gi ci boppam di gestu saa su ne hôpital régional bu Tambacounda. mu ngi noonu jóge nañ Tambacounda ñëw Ndakaaru ni ko Pape Samba Thiam di waxee sunu réalisateur bi euh, yegsi nañu euh, duggaat nañu ci Ndakaaru waaye dañuy des rek Chérif ba tey li des Tambacounda mu jafe-jafe quand euh, boo xam ne liñ koy gis bëri na ci ay bërëbu fajukaay fii ci réew mi mais indi nañ ci xaw as tuut saafara mais quand même c'est c'est à déplorer. alhamdulilah comme saafara am na rek te fam ni ba fi amee affaire bi amee soxna si nga xamante ne moo woote woon wàllu ci rajo bi mhm. ne am na malade bu mu am mu am problème oxygène gisoon nañ coow amoon na digganteem ak direction hôpital bi ba ne sax dañ koy porter plainte pour affaire diffamation mais je pense que loolu lépp amul solo li am solo mooy moom. constaté na ab jafe-jafe woote wàllu kilifa yi indi nañ ko donc mieux vaut tard que jamais comme indi nañ oxygène bi wartoon na manqué sax ba ñu koy indi. mais comme voilà comme comme comme ko. Mhm. loolu c'est un li nga wax noonu nag mooy même Ndakaaru gi structure sanitaire yi des fois ñu am ay jafe-jafe surtout ci wàllu jumtukaay. Mhm. nga gis malade yoo xam xamante ni ñëw ci wàllu taxaw gi te monte day gisoon nañ fii surtout li nga xamante ni moom mooy urgence yi boo fa ñëwee ni nga fay sonn gis nga seex faatu woon te mu mm. dëkkoon Kër Massar amoon accident ba nga xamante beneen jumeau bi moo doon yuuxu ci kii bi ba après am na benn circulaire bu ministère bi génne woon ne nit ki bu ñëwatee en urgence nan ko taxaw déjà ba la ñu ko laaj ne man ci yooyu am na ay jéego yoo xamante ni quand même def nañ ko parce que urgence bu amatee gis nga bala laa laaj ab xaalis ci yenn en tout cas ci yenn structure mm. euh, publique yi mm. dañ lay taxaw ba pare l'essentiel na nga fa bàyyi benn pièce boo xamante ni après nga yooyu mais jafe-jafe la ci wàllu santé boo xamante ni c'est vrai que Covid bi moo ko masqué. mais mm. ba léegi moom ay constat yu ñu def la. ay constat yu ñu def la comme ni nga ko waxee nag du ñëpp quand même am na def seen liggéey mais ba tey am na ci loo xam ne euh, daf ciy des loolu moo tax euh, askan wi itam bu ñu gisee leen loo xam ne wareef na ko wax rek ñu wax ko ni ko soxna si defee mais li Chérif di wax alhamdulilah amagum nañu saafara ci boobu jafe-jafe ba tey ku leen doole aussi jël. non non mais euh, comme ni nga ko waxee. sunu euh, bërëbu fajukaay yi nga xam ne ñoom nekk ci gox goxaan yi ñëpp xam nañ ni quand même ci ay problème la ñu nekk mm-hmm. ci biir élément bi yaa ngi dégg benn waaye mi ngi wax ni que euh, spécialiste yi foog ñuy nangu di ñëw ci gox goxaan yu sori yi parce que askan ba fa nekk ak ñi nekk fii ci Ndakaaru ñoom ñëpp yem ñoom ñoo yem même droit yi euh, c'est pas parce que mu tuddati da ngay dëkk nekk dëkk fu sori soxla faju mais t'es obligé de voyager des kilomètres de kilomètres pour ñu defal la lenn loo xamee ne peut-être que ci diggante bi sax ci trajet bi sax mën na gën a yokk sa feebar mm-hmm. te il suffit un peu d'effort et de volonté rek ngir euh, ñu faj ko foofu nga xamee ni fa nga dëkkee mm-hmm. plateau technique bi dañ ko war a yokku dañ ko war a relever mm-hmm. askan wi faju ci maanaam mm. gis ci seen njëriñ mm. te je pense que loolu moom mooy euh, euh, devoir u nguur mm. te je pense que xaalis bi ñuy faral di yàq dañ koy wax lu bari ci ay tournée politique ay <laughs> tournée économique yoo xamee ni euh, kenn xamul lan la je pense que investir ko ci santé moom moo gën te santé moom ñëpp gis nañ li fi xew ci 2020 bi mm. wane na ni mooy secteur bëpp njëriñ ci àdduna bi waaw parce que ku mu gàllankoore euh, waxuma euh, askan bi waaye àdduna bi yëpp ko yëg ko loolaa nga lay indi de euh, moo tax askan woowu ca Tambacounda nag Modou Fall ne une amélioration de l'offre de soins la ñuy xeex muy xeex boo xam ne quand xeex bu jaadu la. lañuy faral di wax dañuy wér-gu-yaram amul njëg. mais man damay rafetlu xëy na taxawaay bi yenn ci citoyen yi am xëy na mm-hmm. sax euh, du neex ñu nga xam te ni ñoom ñoo yor li nga xam te ni mooy wàllu structure hospitalière yi waaye euh, xel dafa mënul woon xalaat euh, yenn ci structures yi ñàkk oxygène mm-hmm. ba ba ba nit di ko wax ndax oxygène defe naa ci hôpital dafa mel ni rek bakken ci kanam mm-hmm. te loolee waru waruñu ko mën a mën mën a ñàkk nit ñi nañuy nañuy nemmeeku ni lépp lu war a am ci hôpital bu fa manqué ñoom ñu dund ko Euh, mu leer leer war nañ mën a génn wax ko buñ ko waxee xëy na autorités yi réagir comme ni ñu réagiré ci euh, hôpital bi mhm. ba tey nga xam te ne alhamdulilah oxygène ba ñëw na fa mhm. nit ñi dinañu euh, mën a faju waaye li ñu wax rek wàllu santé lépp loo ci jël dafay des mhm. dafay des ndaxte xëy na suñu doole ci suñu dëkk yi maanaam yeggul fa mm-hmm. waaye nañu fexe rek ba am li nga xamante ni moo di bëgg-bëgg bi ak mbébét bi ñuy jiite itam mm-hmm. am yërmande ci askan bi nga xamante ni daal euh, lépp luy hôpitaux buñ ko yeesalee defar ko ci ci Sénégal li am njëriñ ci askan yi la mm-hmm. Euh, autorités yi xam ne que euh, genre dénonciation yi c'est surtout euh, du cri du cœur la mhm. du lu ñuy dénoncer parce que dañ ko fi tàmm fii dangay ngay dénoncer ñële mer mhm. jàpp ni da leen bëgg a yàqal on sait pas la preuve moo fi amoon à Ziguinchor Seydi ba mu fa demee di naqarlu jumtuwaay yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci hôpital ba dafa génn wax ko mais bi mu ko waxee lan la si jëlee mhm. rappel à te loolu du yoon loolu du yoon. Mhm. te après na ñu dem yóbbu fa ay jumtuwaay yi nga xamee ni moom moo fa manqué woon. Mhm. mais lu tax ñu lu tax peut-être que su ko waxul woon loolu <laughs> loolu yëpp du am. Mhm. ce qui dire que askan mi moom lu mu gis lu fa lu manqué dina ko wax te loolu wax boobu c'est plus wallu que euh, que que que di dénoncer wala di. mettre euh, xaw ma le doigt ci ay yenn manque yenn manquement mais day lu jaadu sax Cheikh parce que nit aussi boo ko boo ko falee teg ko ci sa bopp réew c'est pour mu indi la ay saafara la donc soo gisee loo xam ne métti na la dafay jaadu quand nga wax ko fi nga ko war a waxee bu ko defee mu bañ a bi ci nopp kuy tëx c'est important euh, ndongo ka yaag ngeen ko dégg ci sunu euh, rédaction bi mu toogal ñu fële ca banlieue bu Dakar wala mu bokk ci ñu fa toogal banlieue ba nag ña fa nekk bari nañu macha allah ñoom Salif ak Chérif ak Habib ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu donc am nañu mbégte di la dalal fii. Mm, maa ngi gën a bëgg euh, mm. ci teew gi ma